ginnaaw amagul koy faat ñu faagaru toog kër ga yaru maa ngi tudd Mor Jaxate jiite kuréel gi ñuy wax Alpha Dev xale yi ak ndaw ñi nekk ci garage yi ak atelier yi di jàng métier ñu bàyyi leen xel teg fa ndox mu doy ak saabu bu doy ñuy raxasu saa su ne di raxas jumtukaay yi ñu jëfandikoo te wàññi liñ leen di yóbbu sànce ñuy teel a wàcc di ñibbi ngir mucc jàngoro corona bi ndax ëllëg ñu mën a jariñoo seen métier. Stop Covid-19. Je reste chez moi et j'apprends à la maison.